Moi, ma suis venu ici, je suis venu ici, je suis venu ici pour débattre mhm. sans ma battre. mais li ma xalaat danaa ko wax da ma maa posé yaa ma posé question nga ni ma fan laa dégg Ousmane du wuy ji fan yii rek maa ko dégg fii mu ne dañ may woo bu ñu ma woowee du ma dem. ah waaw. je vous en laisse l'entière responsabilité. am ah, maa ko wax kay. mooy du dem jërëjëf mooy du wuy ji xale ko bul dem bul dem bul dem bul dem. <laughs> d'accord jërëjëf. <laughs> ok ma ñëw ma ñëw ci maître. mu ni du dem. Euh, mais maître Moussa naka la ñuy def tey jii ah parce que euh, parce que ku dégg euh, wax ji xam ne y a problème mais problème yooyu justice am naka la ñuy def ba teg ay réformes yoo xamante ne sénégalais nañ santi seen bopp ci justice bi ni muy doxee. <coughs> effectivement y a des les problèmes sont inhérents à la vie d'ailleurs mm-hmm. il n'y pas de secteur d'activité où il n'y pas de problème mm -hmm. a justice justice dafa particularité parce que ma préciser ko justice waru garam du lor nit mm-hmm. absolument ça il faut mu leer joxuñ benn àttekat sañ-sañ pour ngay lor ay doomu aadama ay citoyen mm-hmm. ci àqam ak yelleef bu mu mënti doon xam nga lu ñu sant àttekat mooy mu wax le droit technique ci yoon. Mhm. ku jalgati yoon ñu teg la ci yoon pas lor nit lor nit a jóg justice. ko mën di doon. li ko li ko tax a jóg. Mhm. mooy régler des conflits litiges mu ne lii la la yoon teg su ne yaa def ou defuloo maintenant justice am na problème kenn du ko werante justice am na problème. Mhm. mais l' essentiel du problème encore une fois c' est le parquet. c' est le parquet ça je veux être clair. moi c' ma position. le problème. essentiel de la justice sénégalaise c'est le parquet parce que nous avons des textes dépassés surannés mm -hmm. il faut que ñu revoir les textes et textes yi revoiruñ ko pour des questions d'absence de volonté politique parce que ku nekk ci biti mhm. xam nga ne problème mu justice sénégalaise c'est le parquet parquet absolument boo faloo doo réformer mhm. parce que da nga koy soxla surtout c'est ça la vérité le problème c'est le parquet parce que régime bu mhm. parquet ngay sukkandiku parce que parquet ci yow la dépendre. Mhm. nga di ko defloo. loo ko warul la defloo. ulum war a moo tax ma ne. si foog ñu wax ji leer. mais foog ñu wax wax ji leer. mooy maître li nga bëgg mooy a tëj ko. non non ah, oui si parquet parquet aussi. bu ñu la joxee instruction tëjal nit mën nga ko tëj ah, tëj. ah encore une fois c'est le parquet moins les juges du siège les juges du siège y a des problèmes mais problème ya tollul noonu. li fi nekk ci texte mun na leen permettre ñu wéyal seen liggéey normalement donc le problème c'est le parquet encore une fois. Mm -hmm. il faut que ñu réformer texte parquet. texte parquet maintenant le problème c'est un problème de volonté politique. Mm -hmm. parce que coow lii du coow lu bees. yàgg na fi depuis de décennies. mais régime bu ñëw tant que yaa ngi ca biti. parce que parquet day jóg contre toit mhm. boo faloo nga ne ah am naa ci soxla kon naa téye système bi ni mel ni. Mhm. texte yi. mooy mën a joxe instruction yëddul ma diw jàppal ma diw parce que nag c'est légal mhm. parce que écoute le parquet est rattaché à la chancellerie mhm. chancellerie joxe instruction donc bu ñu buggee loolu dañ il faut d'abord mhm. ñu supprimer les instructions individuelles en France supprimer nañ ko léegi parce que dafa juróon coow parce que soo gisee mu am coow indépendance de la justice par rapport aux acteurs politiques c'est lié aux institutions individuelles parce que l'action pénale dafa am jeexital ci carrière politique u nit moo tax France bañ jëlee texte fa la coow lañ njëkkoon a tàmbalee à chaque fois que homme politique amoon problème on en tire les conséquence sur le plan politique après mu yàq sa carrière absolument donc ñu gisoon ci ne parquet exécutif ci dugal loxoom pour supprimer loolu ñu supprimer les poursuite individuelle. Mhm. ça ne règle pas globalement le problème mais mën na ko wàññi sensiblement. mooy mhm. il faut qu'on supprime les instructions individuelles nga xam ne parquet kenn dootu ko joxati instruction. Mhm. ne ko toppal diw tel dossier def ci nii. tel dossier boo demee audience waxal lii boo demee ci cabinet d'instruction waxal lii. waxal lële ñu supprimer ko. ñu bàyyi procureur mu def liggéey ça c'est important deuxième chose parquet day buur di bumi le parquet dans un état de droit dans les standards internationaux. parquet warul tëj nit kaso waru garam mooy topp le mm-hmm. parquet son rôle c'est de poursuivre mm-hmm. et il un juge du siège mm-hmm. pour ñu arrêter ak juge d'instruction Sénégal nag procureur day poursuivre ba pare tëjagum la kaso ngay xaar jaaduwul méngoowul ak état de ku na yem ci chartam mooy procureur na yem ci topp maintenant bu toppee ni nag bu ko lu mu nekk partie au procès comme les autres même si c'est un c'est une partie spéciale parce qu'il défend la société moo tax il faut ñu instaurer ce qu'on appelle un juge des libertés et de la détention mu nekk un magistrat indépendant su parquet soupçonné nit ba jàpp ko parce que ñu jàpp il est toujours présumé innocent juge des libertés de la détention waaw de la détention ñu instauré ko parquet dalay jàpp ba pare dem ci juge boobu mhm. ne dama bëgg ñu mettre ko su mandat de dépôt avocat yi ñëw taxaw plaider ñu xool est-ce qu'en l'espèce les conditions sont réunies est-ce qu'il y nécessité de mettre cette personne en prison. Mhm. loolu réforme bu am solo la. parce que Sénégal aussi il faut le dire suñu culture parquet c'est une culture ultra répressive. Mhm. jàpp rek lañ xam. Sénégal mooy réew moo xam ne moo tax kaso yaa ngi ah, mooy réew laa xam a gënal laa xam a gënal. caakri laa xam a gënal caakri mën nga cee dem. mën nga cee dem kaso doy na waar kon. mën nga cee dem kaso. Mhm. je dis loolu il faut réformer ko réformer waat aussi yeneen textes yi nga xam ne parquet si lay sukkandiku. déséquilibrer le système judiciaire. Absolument. parce que le parquet qui déséquilibre le système judiciaire te bu ñu nee parquet il dépend de l'exécutif mooy ces articles cinquante six ba cent ak mhm. nga jël code boo xam ne à cinq cent articles la. un cinquième des articles lépp lekk ci loxo procureur benn nit. boo xam ne il dépend du pouvoir exécutif te ci article yooyu ñu ne la 139. Mhm. comme ci sàkku ne la yóbbu kaso nga tëdd kaso. le juge d'instruction n'a aucun dès lors que tu fais une réquisition mhm. pour arrêter quelqu'un c'est énorme cinquante articles sur un code de cinq cents ça veut dire ak ak yelleefu doomu adama Sénégal dañ ko salfaañi donc waxuma ne article yëpp war dañ mais am na ci yu bëri dafa war a dëj mhm. article cinquante diffusion de fausses nouvelles loolu waxu tappale ah diffamation am na lu ñu doy ah diffusion de fausses nouvelles loolu ah diffusion de fausses ah historiquement mhm. quand on le faisait autant ça pénal suñu code de procédure pénale lu ci bëri méngootul ak jamono texte yi dañu xewi diffusion de fausses nouvelles amatul sens diffamation ngi fi lu ñu doyee diffusion de fausses nouvelles article lu ñu koy doyee et parce que boo xoolee suñu code pénal da nga gis ne amul infraction politique amu fi mais pourtant on peut considérer ces articles ba 100 ba comme des infractions politiques par destination ah waaw c' est des infractions politiques partisan xam naa ci dara parce que activiste yëpp ma leen defaan. bien sûr depuis dix ans. si les textes yoo xam ne guddeeg bëccëg mën naa ci bind livre. Mhm. c' est que ñoxo mooy li ma la wax rek. nga nekk Guy Marius Sagna. Mhm. Abdou Karim xurum xaq. Mhm. nit dof nga ne ma ce nga nit dof. bu mujj Momar Talla Gueye nga ne man cere. moo ma gënal. caakiri moo ma gënal couscous marocain. ñu ne la ciix dem xooli ci texte bi. Ah, dama lay won dama lay won. ci ça le problème waxin la damay damay lépp waaw dama lay dama lay décrire rek comme ça pour montrer si c'est l'avocat qui parle <laughs> c'est pour montrer à quel point on peut <laughs> pour des faits anodins des faits anodins ay jëf yoo xam ne ou ay wax yoo xam ne amul bopp amul genn ku ko dégg ku ne da nga xam ne kii li nga koy tuumal loolu nekkul ci boppam mhm. yow yaa ko xelaat mais moom xelaatu ko mhm. nga xool wax jam wax u jëf jam wax lan la niroog ci code pénal bi ci entre article cinquante six ak cent ak deux cent cinquante cinq mhm. nga jox ko ñu yóbbu ko devant le juge d' instruction c'est bu ñu demee ñun juge d' instruction mhm. au moment des auditions dans des cas comme ça article yooyu juge bi du am sax question bu mu pose parce que des dossiers vides amul flagrant délit mhm. mais dañu lay bëgg a téye le mode de règlement au lieu ñu yóbbu la flagrant délit atte la jooni jooni bu ñu lay tëj tëj la léegi bu ñu lay def sursis naan la dañ lay yaragum. Mhm. rôle justice du loolu. Ah, c'est moo tax waa dama ne rôle justice. du pour ay damay yarag da ah, damay lor nit non justice na xool li jaadu. mu def ko. Mhm. et parfois dañuy gis ay réglement yoo xam ne parquet. ñambaas ci ñambaas ci ay infraction yoo xam ne. entre cinquante six jëf ji ak wax ji. Mhm. jegewul loola. xam nga dañ naan ñambaas. baax na ci sër. day dëgëral takk. Mhm. waaye budul yëpp. mais budul yëpp. ñambaas budul yëpp. waaw mais ñoom seen i ñambaas. mais mais am na lu ma la bëgg a laaj foofu. <laughs> Euh, cas yi nga fi wax nii est-ce que c'est toutefois que le juge est lié. pour di yóbbu am na yoo xam ni je crois que ultime conviction lay dépendre. non article yi il y a les deniers publics code des douanes qui lit mais il y a des trucs qui ne lit pas. monsieur le ministre liberté monsieur ba 100. Mm. ak bi nga xam ne moo xew fii. ci jamono jii ci réew. Mm. le juge il lit. sur la base de cet article 139 du code de procédure pénale te temps yi moom lañ xewal. muy ñambaas buy yëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. da ngay gis bu ñu la tuumalee infraction manifestation il faut ñu ñambaas ci mm-hmm. parce que bu ñu ko ciy tàbbal ca biir rek di ko. di nouvelle bu ñu ko cay tàbbal rek kaso direct. mbaa ñu ñambaas ci article quatre vingt. direct mooy li wax rek ñambaas baax na ci sër lool day dëgëral yeew ba. waaye <laughs> buy yëbb. ñambaasu parquet nag day yëbb. foofu la ko ci boole donc c' est le problème de fond. c' le parquet mais du tere en su parquet tegee acte ñu ne jaaduwul ngelawaay bu yegee nag ci juge bi nga xam ne moom. am na sañ-sañu nag. moom miy atte te yoon jox na ko sañ-sañu atte mu atte nag. te moom nañ seen bopp te foofu encore c'est très important. parce que mën na jàpp jaay la doole. mën na am mu la doole mën na recevoir des instructions mën nañ ko instrumentaliser. Hmm. mais nag bu yegsee ci nga xam ne ñooy juge du siège parce que boo déggee indépendance de la justice parquet taxul ñuy wax. Hmm. c'est les magistrats du siège ñooñu nag. malgré que seen i ay textes mën nañ ko defaraat. Hmm. gën a encadrer intérim bi pour magistrat du siège bi duñ ko mën a affecté saa su ne mën a encadrer gën a encadrer euh, principe de l'inamovibilité nga xam ne jógam et et cetera loolu yëpp mën nañ ko dëral mais en attendant kon que il faut ñu àtte. na ku ne jël say responsabilité man loolu laa gëm mm-hmm. man li may def nii mm-hmm. suma responsabilité laa jël di wax li ma xelaat du ñàkk suba bu ma xëyee audience mm-hmm. am na kum dul neex mais seetuma loolu li ma gëm rek lay wax parce que yéene ma tooñ kenn ci li ne loolu taxumaa jóg li ma xelaat suma jàngat nangu nag keneen jàngate neneen gise neneen mais pour man c'est ça les textes mën nañ ko conseil supérieur la magistrature aussi ci liy defar justice la bokk ce n'est pas que nag chef de que kay atte moomul boppam non. Mm-hmm. kay atte les trois yi atte magistrat du siège bu ñu atte président néew fa mais dans un état bu ñu proclamer l'indépendance de la justice dans nos textes et non mm-hmm. pas une autorité judiciaire jàpp naa ne ne serait-ce que symboliquement symboliquement mm-hmm. chef de l'état waratu fa nekk la preuve gis nañ fi benn doyen des juges yàlla jël ko yàlla na yàlla euh, teeru ko ci at ñu gën a koy ñu toog ay weer ñu am juge parce que conseil bi dajawul jàpp naa ne réew mi njiitu réew am na lu bëri lu mu war a def lu président réunion conseil mhm. supérieur la magistrature kon mhm. jàpp naa ne mën na caa génn mhm. su nekkee ne teewaayam aussi dafay nekk source de pression ñu réformer le conseil supérieur de la magistrature tuddee ko par exemple conseil supérieur la justice yokk ci ñeneen peut-être ñu dugal parlementaire peut-être ñu dugal avocat peut-être ñu dugal de droit parce que la justice parce que la justice c'est une question éminemment citoyenne gis nga justice citoyen yee ko moom kenn mënul tere nag benn citoyen mu li mu xelam kooku ku jéem da ngay sonal sa bopp mm-hmm. su la neexee yow maas mbopp nga wax li nga xalaat pour que nag mu nekk ci respect mm-hmm. ci yar ak teggin mm-hmm. mais kenn mënul tere nit ñi ñu xalaat ci justice su ma nee nag du magistrat yi rek même ñun avocat yi la parce que ñun tam su bokk te léegi ñu am taxawaay boo xam ne rafetul jaaduwul kon il faut nit ñi di wax di wax li ñu war a wax kenn mënu ko bañ maintenant nag il faut nit ñi defaraat seen toogaay suñ la sante ne da ngay atte ou ngay layoo c'est un privilège sa nawle li la nga atte u nga layool ku la ëpp xam-xam fuuf layool ku la mag fuuf layool ku la jëg gën jikko fuuf mhm. atte ku la gën fuuf nga xam ko kon ñun ñépp nag laa wax dafa am taxawaay bu ñu war a am pour suñu justice gën a jëm mhm. kanam personne n'est parfait mais jamono ju ne ku ne na nga assumer say responsabilité ci jamono jii ñu toll mhm. coow li bëri na am na lu ci am nag am na lu ci amul itam am na lu ci amul waaye li ci am coow li bëri na ñun ñëpp xam nañ ko coow li mmh. bëri na mais am na lu ci am ci coow li am na loo xam ne amul mmh. tegul fenn waxu kasaw kasaw la mais am na lu ci am mmh. li ci am xam naa ko man mi avocat ñi atte xam nañ ko ñiy noté ñun ñëpp ñi ni si ku ne xam nga li ci am li ci am nañ ku ne na nga defaraat sa toogaay nga jël say responsabilité réew mi réew mi gënal la sa bopp absolument réew mi gënal la sa carrière réew mi gënal la benn terrain bu ñuy dagg fële booru aéroport jox la ko ci VDN bi nañu waxante dëgg. absolument am na loo xam ne ku ko nangu yaa ko nangu. Mm-hmm. parce que nañu waxante dëgg gis nga réew la plus grande menace sur l'indépendance de la magistrature. Mm-hmm. c'est pas le pouvoir exécutif. c'est les pouvoirs de l'argent. première menace oui. sur l'indépendance. Ah, voilà. maintenant je parle indépendance de manière globale. je fais une analyse holistique. Oui. première menace. c'est l'argent la première menace sur l'indépendance la deuxième menace sur l'indépendance de la justice c'est les groupes de Mm-hmm. groupe yi nit ñi bokk ay kuréelu truc machin ci mbiru diine fii laa bokk fële bokk ci ay truc yu lugubre deuxième menace troisième menace l'exécutif mm-hmm. maintenant nag les exécutifs ci dossiers yi mu yàam mu intéressé ko et eh, ça détermine la dévolution

terminer ci benn point. waaw waaw dama ko fàttewoon ngeen baal ma rek ma terminer ci sama intervention. Mhm. par rapport toujours au parquet. dafa am benn débat bu indi coow ci réew mi. Mhm. ñëpp. parce que dafa yàgg ci réew mi mooy le débat des cours des comptes débat IGE. Mhm. débat OFNAC gis na sa problème la c' est un problème de texte. ay texte. texte moo jox parquet opportunité de poursuite. mooy donte texte moo jox. parquet sañ-sañ. ne bu la neexee nga topp la neexee doo topp. ba dossier yooyu yëpp nga xam ne tuumal ay nit. ne dañoo luubalu askan alalu askanu réew mu ndool mu mel ni. Mhm. léeg-léeg du topp kenn. Ah. c'est à dénoncer je dis pour le régler nag. non pour le il faut réformer. il faut réformer moi je l'ai dit et je le redis. c'est que texte mhm. yi bi gis nga problème bu ñu ko identifier. Mhm. dañuy def solution xam nga lu koy dindi. mooy on peut maintenir le principe opportunité de poursuite mais en matière de bonne gouvernance mooy xaalisu askan wi képp ku ko leggati ñu ne procureur soo jotee dossier bi. obligation de poursuite. de poursuite nañ changé ah ba pare en disant à l'IGE à la Cour des comptes. à l'OFNAC ne ñoom ñëpp. seen rapport bu ñu paree en plus du chef de l'État nañ ko yónnee au procureur de la République. problème mais aussi il faut des solutions. mooy mooy mooy réformes aussi. Ah, parce que c'est li wax gravité bi mooy euh, tey jii nit mën na bokk ci benn parti ñu jiiñ ko luubal of nag wax ko génn ko cour des comptes génn ko président jël sañ-sañam ne kii du ma ko condamné ndax ci man la bokk. waaw mais loolu il faut des réformes parce que aussi am na ko sàcc ginaar am na ko sàcc nangam mais nekk ñu tëj ko pendant pendant cinq ans six ans sept ans. waaw ni parquet di doxee y une rupture d'égalité des citoyens dañuy topp ku mën day bàyyi ku mën bokk ci pouvoir bi. léegi bu ñu dégloon tey rek. Mm-hmm. quand il parle c'est intéressant de l'écouter parce que quand il donne les segments quoi